Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah,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 danañ la mën a tàbbal ci group bi incha allahu waaye nag dana am sarta yoo xam ne tëral nañ ko lu tee ci biir group ba incha allah loolu yëpp képp ku jokkoo ak rek dana gën a leer bu neexee suñu borom subhaanahu wa taala mu delloo xam ne man borom Touba xam di sama cant léréb bin jox naa ko buur karimun bu daa ji tedd la sarika moom mi xam ne déet xeeti genn aji bokkaale loxoo di ko ñeel xaala ci sama texe bi man ca ka nga xamee ne bi man ci darjaay ka nga xamee ne uutihi joxes naa ko am daahi samay tagg mu ne nag sama cant moon borom Tuuba jébbal naa ko yàlla mi nga xam ne benn buur dong la mooy buur buy defere di yare mooy buur bu tedd bi mooy ki nga xamee ne kenn du ko bokkaale ak kenn ak dara nirawut ak dara moom suñ borom nee na cant googu dama ci jëlee rek ak texe te moo di tagg yi may tagg di ko jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax mu ne sama cant daal jébbal naa ko yàlla mi nga xam ne mooy buur bu tedd moom mi nga xam ne day xeeti génn naa ji bokkaale di ko ñaal dégg nga sama tagg wi daal nga xam ne moom lay jox yonent bi naru ma cee jëlee lurut ak texe rek texe rek moo tax may tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na ko ci xëj rek ataaba nee ne wér na péng na tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam day joxe day joxe ak texe ku ko tagg texe yonent bi sallallahu alayhi wasallam dégg nga ku ko tag taggu jub rek ngir jëm yàlla faaw da nga texe moo tax mu ne ala falaahi bi man uxti amdahi mat yi sama tagg li bari ñeel na ka nga xam ne mooy jiiri ji wa bahrin ak géej saa xam màng na li jëmee ci man ni xalaa mayam ya fil bari moo xam ci biir jiir ji màng na ko jëmee ko ci man wal bahri ak géej gi màng na ko jëmee ci man xataa faa dat ba bëbb mooy fees na tepp bay tuuru sax ak daay sama kaas mu ne sama tagg jëmale na ko ci yonent bi nga xam ne mooy baru di baxru moom laa doon misaal ne boo koy taawil mooy ki am xam-xam ak ki ñàkk xam-xam maanaam daal bi moo dajale jéeri jéeg géej gi moo dajale lépp daal mooy ki nga xamee ne maanaam toll na ni géej tollu ni géej toll na ni géej toll ni jéeri ji loolu aw tagg la moo tax mu ne sama tagg jébbal naa ko yonent bi nga xam ne mooy jéeri ji di géej na ay mayam yi indil ma ba ma nekkee ci biir jéeri ji ak géej gépp gis nga kamuy tagg mooy barin di baxrin dégg nga mu ne nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam màngal na ko ay mayam ci biir jéeri ji fil bari wal bahri ak ci biir géej gi ni muy taggee yonent bi di jéeri ak géej noonu la ko yónent bi màngale ay mayam bi mu nekkee ci biir géej gi ak ci biir jéer yi daw tàgg gu rafet. mu ne nag may yooyu yónent bi sallallahu alayhi wasallam ko jëmee ko ci dafa dem ba sama bagaan sama defukaay commencé di tuuru di bëbb ngir fees dell. dégg loolu ki naay la ci bëri rek day wane ni géej bëree wala jéer yi yaatoo ko noonu ay mayam noonu lay bëbbee ci ay bagaanam ndax yónent bi moo koy doyal. moo tax mu ne mat is maw tagg li bari ñeel yónent ba nga xam ne mooy jéeri wa baxrin ak géej dégg nga yonent bi mooy jéeri wa baxrin tey géej saaqa màngal na moom yonent bopp lii jëmee ci man ni xala ay mayam fil bari moo xam ci biir jéeri ji wal baxri ak géej gi xataa faadat ba bëbb na aqdaa yi sama kaas mu ne mat yi li liman kafa anni kulla maxlakatin waraadali kulla jabaarin wa jammaahi mu ne mat yi sama tagg man ñeel na yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne kafa fekk na xal ni mu sëri ma man borom Tuubaa kulla maxlakatin bépp alkande waraada tàggatal na lii ñeel ma ku la jabaarin bépp aji réeréelu wa jamaa yi ak ki nga xamee ne mooy nuuru la ci bàkkaar mu ne samaw tagg ñeel na yonente bi sallallahu alayhi mi nga xam ne musal na ma ci bépp alkade lépp luy alage rek yonente bi fegal nama ko ba duma ca jaar wala loolee duma alag lépp luy alage rek yonente bi moo ko fegal kon nag sama tagg ci moom laa ko jëmee naka noonu képp ku ñaan day réeréelu rek te fitirlu dégg nga génn diini ji kooku mooy jamaay moo ko doon def fitur lu génn diini ji moom la arab yi di wax nit ki su fekkee dafa war bëgg-bëggam nga xam ne def ko mu def ko muy laxab gum téye kooku du mën a delloo laxab gu mukk loolu bu ñu ko waxee mooy ko xam ne dafa jël yoonu boppam moo tax bu ñu ne rajulu rakiba hawaahu fala yumkinu radduhu fa huwa jaamihun nit ki su fekkee ne bëgg-bëggam la wala oto gum war mooy day dawal rek xamul taxaw kuy moo yàlla nag noonu lay def day féeteerlu mu ne nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam tàggatal na ma képp kuy réeréelu tey nuuru waakoon ci bàkkaar mooy ku war bëgg-bëggam te du ko wàcc. moo tax mu ne mat yi sama tagg li man ñeel na yonent ba nga xamee ne kafa fekk na xan nii mu sari ma ku la max lëkkatin bépp alkande waraada tàggatal na li ñeel ma ku la jabaarin bépp aji réeréelu wa jamaahi tey nuuru waakoon ci bàkkaar jabaar bu dee ci yàlla ci tur yi la bokk waaye mooy mbër tigi mooy jabaar bu bu ci nit nag ñi ko wax jabaaran mooy kii mbër mbër lu nga xam ne matul mbër waaye da koy def rek dégg nga waaye matul mbër moo tax ma ne sun yonent bi waraatali kulla jabaarin képp kuy mbër mbër rek di tëttalu wane ne mbër nga giree nga maanaam yonent bi moom la tàggatal bayo yow mënatoo maa lor te man mën naa xam nga yàlla bu la tàggatalee nit ki nit ki dana toll ci moment boo xam ne dalay bañ lool waaye bu la ko yàlla tàggatale wala nga def pexe moo xam ne yàlla da ko da ko sottal kooku dootul la lorte waaye day jàllar bi ko sopp la. moo tax képp ku doon réeréelu rek ba noppi nag te nuuru ci bakkaar yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom ci boppam moo ma ko tàggatal ba mu mokk rukk. moo tax mu ne moom yonent bi waraada tàggatal na lii ñeel ma ku la jabaarin bépp aji réeréelu wa jamaahi tey nuuru waakoon ci bakkaar daxa woon xilaami samay xalima li mat il Moustapha jëm ci tagg kañu tànn kan moo ko woo mu ne sanadi sama wéeruwaay bi di yónent bi sallallahu alayhi wasallam xaxaril xaxari sama not alxeda samay noon doona asiyaafin ci lu may téye benn jaasit wa armaay ak i xeej nee samay xalima li ko woo ngir muy tagg yónent bi sallallahu alayhi wasallam mi xam mooy sama wéeruwaay mooy daal not gi ma war a not sama noon ba noppi nag yàlla daf maa defal secret ma war a not samay noon te du not du doon notel goo xam ne ci jaasit laa koy jaaree wala ay xeej sama xalima ci laa koy jaaree moom laa doon wax ne sëñ Tuubaa lépp lu dal noonu rek mi ngi bàyyi ko ci xalimam moom laa doon wax ne benn jumtuwaay lu yu bon boo xamee ne tubaab yi bu ñu amoon xel dañ koy jël waaye amuñ xel ba def na ni xalima gi moom maanaam jëriñu dara ci borom Tuubaa te fekk mooy secret su fekkoon ne dañ koy jël rek maanaam dañuy man borom Tuubaa li leen borom Tuubaa duma yëpp mooy xalim mi ngi ci xalima gi mooy xalima gi mu yor ak daxa ji dégg nga amuñ taw yi amuñ pas-pas parce ñu gëmul yàlla amuñ maanaam tey borom Tuubaa mii li ñuy lor wala li ñuy teg ay fitna mën naa juddoo ci xalimaam gi ñoom amuñoon pas-pas boobu gëmuñ ko woon te mag ñi lu leen lu yàlla may lu leen la yàlla may yàlla may na leen sir yoo xam ne buñ ko jàngee benn yoon rek seen noon du leen jege yàlla defal na leen ci seen xalima loo xam ne tabaarakallahu kuñ ko junñi ko tàkk kuñ bind jëmee ci moom tudd saw tur sax dootoo jegati kon daxaa woon a xilaami samay xalima limat il Mustafa jëm ci tagg kañu tànn ka sanadi kay sama wéeruwaay xaxari sama not ane daal samay noon moo ma woo doona asiyaafin ci lurul may téye benn jaasin wa armaay ak xeej gi ma war a not daal samay noon te du ma benn jaasin wala xeej moo ma woo sama xalima gi ci bopp moo woo ne ma kaay tagg yonent bi nga xam ne mooy Mustafa di sanadi xasida googu jeex na mu tàmbaliwaat beneen Muhammad mu ne bismillaahi sos na ma sama wax ci tuddu turu buur bi raxmaani buur bay xéewalaa kon bépp mi néef ci àdduna raxiimi buur bay ajjëram ko soob ci àlaxira allahuma yow sunu borom sal yàlla nga sax dàkkari julli ala sayidina ci kaw sunu sangay muhammadin turam mooy muhammad wa alihi ak ñoñña wa sahbi ak sahabaami wa sallama ta nga dolli ko salman tasliman dolli ko salman mu ne tudd naa sell ak sunu borom mi nga xam ne buur ñëpp ñëpp bépp buur boo mën a gis ci àdduna rek ak kurut buur ñëpp moo leen di bokk di taral di leen xéwal ci yow sunu borom yàlla nga sax dàkk di julli ci yonent bi nga xam ne mooy sunu sang bi turam di Muhammad yàlla na nga julli ci waa këram ak saabaam yëpp dolli ko lite ci moom. mu jël turu Muhammad jël mi ngi njëkk jël mi ngi man ne mansaruhul fawsu fii daareeni duuna anan falaa yufaariqu kitaaban nuuruhu alana mu ne man koo xamee ne sarraxoo dana ko belliloo sarraxoo dana ko kontaanloo alfawsu ak geñe gim geñe mooy texe gim texe fii daarin aduna kalaaxira doona xanan ci lu benn coona mu ne kooku kat falaa yu faaraxu du tàggu mukk kitaaban téere i nga xamee ne nooruhoo leeram nga alana mooy mooy mooy feeñ na fépp mu ku bëgg daal am texe aduna kalaaxira te doo am benn coono ci aduna kalaaxira te da texe da nga belli aduna belli alaaxira mu ne bul tàggoog téere bii di alquran nga xam ne leeram gi dane fang di jolli ci waxtu ne man koo xamee ne dana ko bégloo alfawsu texem fii daarin ëdduna ko alaxira maanaam koo xam ko alaxira ba tax kanam gi foo ko fekk mi ngi béll bu dekkee mi ngi béll bu nekkee ci mi ngi béll doo nax nan benn coona du ko dal ci àdduna ndax day bélli yowmal xiyaam du ko dal ndax day bélli mu ne kooku benn benn rek la benn gàllaaj rek la mu ne falaa ko bu mu tàggoog mu kitaaban téere bi nga xamee ne nooruhoo leeram ga àllanaa feeñ na fépp mooy dana fàng mu ne xawaa ni lam yaati man salafoo bi mislihi xayra ilmin bi rida qurina mu ne xawa laq na anisaama woy allasi woy wi nga xamee lam yaati mooy indi sut man salafoo ñi fi jiitu woon bi mislihi wu mel ni moom xayra ilmin ngën ci xam-xam qurina boobu lënkalees na ko bi rida ànd li nga xamee ne moo di ngërëmal yàlla mu ne woy ma woy man borom Tuuba boo doon xool ñi fi jiitoon ñépp indi huñ woy yu mel te nee na wëyu ci boppam ngën ci xam-xam la làq te nag boo koy jàng mooy biri daa xurina mooy da ngay am ngërëmal yàlla moo tax xasida borom Tuubaa yi ku koy jàng faaw mën mëntu ñàkk nga am ngërëmal yàlla su fekkee danga koy jàng ngir jëm yàlla dong tax ngir jaamu ci yàlla ngërëmal yàlla danga koy gaaw am faaw moo tax mu ne samay xasida yëpp la ci namu maanaam amul ku moso indi xam-xam bu mel nii te xam-xam bii kan ngën ci xam-xam la muy xam-xamu xasida te itam lépp ngërëmal yàlla da ci nekk moo tax mu ne annisaama woy wi allasi yi mooy woy wi nga xamee ne lam yaat yi dikkee sut mukk mooy indiwut ko mukk man salafoo ñu fi jiitoon bi misli woy wu mel ni moom xayra almin te ngën ci xam-xam la boo xamee ne xuri naa lënkalis na ko biri daa ànd ko ngërëm maanaam daal xasida gi yàlla da cee da koo def muy ngën ci xam-xam boo xamee da koo lënkale ak ngërëm tabaarakallah nga xam ne kon kuy dul xasida ngën ci xam-xam bu wóor te sell yaa ngi koy jàng waaye itam yaa ngi cee dajee ngërëmal suñu borom tabaaraka taala ndax xasida la yoo xam ne xam la boo xam ne woy njëkk ña woy teew ña woy ñëw ña kenn mostu indi lu ñu mel te kenn dootu mostu indi lu ñu mel kenn mosu ko indi te kenn du ko mosu indi mu ne man saruhu kawnuhu fil haali misla qadin mulaasiman li rasulillahi sayidina mu ne man saruhu koo xamee ne maanaam dana ko bégloo kawnuhu ak nekkam fil haali fii cëduna misla xaddin ken ëllëg yamal xiyaam mu ne benn gàllaaj ba tey la mu ne mulaasiman nay faral di tëqoo rek li rasulillahi ñeel yonentu yàlla bi sayidina kay sunu sang booy xool ñetti bay di gis nga ko dafa mel ni wax na ci alquran ku bëgg a belli adduna ak alaxira du am benn coona mu ne tëqalu alquran baytum bi moom xasidaam mi la ci nam mooy xasida yoo xamee ne way njëkk ña kenn mosu indi lu mel te gën ci xam-xam la boo xam ne ku koy jàng am ngërmal yàlla kon dañ ci dégg ne xasida gën a gaaw ci ngërmal yàlla baytu ñetteel bi mu ne ku bëgg di belli aduna ak alaxira mu ne leen rek la mu ne tëqool ak yonent bi mu laasim la wax na mooy koo xam ne da ngay tëqoo yonent faw di ko roy moo tax ma ne man saroo koo xamee ne bëgg na waxtu ne mu di ko belliloo kaw noo ak nekkam filaali fii ci aduna mis la xadin kem ëllëg yemal xiyaam ngay belli ci di belli ëllëg yemal xiyaam mu ne mu laasima rek la na nga tëqoog rasulullah ñeel yonent bi muhammadin fal yulasim saani saama bila tafaaruqin fa huwa nasmun ajisal umana mu ne kooku may wax na nga toqoog moom su fekkee bëgg nga ëdduna ak àllaaxira nga fu ñu la fekk rek ngay bég mu ne muhammadin kooku turam mooy muhammad muhammad moomee nag fal yulasim dana toqoo saani saama gi xasida bila tafaaruqin ci lu muy tàggoog moom ndax foofu moom nasmun wëy la woo xamee ne ajasa na muy lottal na al umana way wóor ña tabaax mu ne yonent bi day tëqoog woy wii xasida gi la ci nam te du tàggoog moom mu ne xasida gi woy la woo xamee ne maanaam ñu woon ñëpp ñu baax ñëpp taalifkat yëpp ñu mën a woy ñëpp ñu am balaaxa ak fasaaxa yëpp maanaam lottu nañ ci maanaam tëli nañ ci waxoon daal injaasul xasaay dafa am sëñ bi day wax ne maanaam xasaay itam yi kenn mënu ko ni yàlla waxee ne alquran kenn mëntu du lu nu mel waaye xasaay di ba tey kenn mëntu du lu nu mel nee na yonent bi nag day tëqoog xasaay di te du tàggoog moom day tëqoog samay woy te du tàggoog moom day taxawu xasida gi te du tàggoog moom ak xasidaam yëpp sax moo tax ma ne Muhammad moome fal yu laasim dana taxaw saa ni saama gii wëy bilaa tafaariqun ci lu muy tàggoog moom kat ci lu muy tàqalikoog moom ndax foofu moom nas mun wëy la woo xam ne anje sa lottal na al umanaam mboolem wëy wóor ñett a baax ñëpp wëy yi maanaam lot nañ maanaam di indi wëy wu ñu mel. mu ne dara sawal aqli anal Mustafa alana alayhi taslimu mu faax man alana mu ne dara xam na xam-xam wur wóor sawal ñan mooy borom xel yi anal Moustapha naka kañu tànn naka dégg nga ala naa ci lu fiñ xale yàlla doole nekk ci moom taslimu rabbi sëlmaluk sama borom ñoom ñëpp xam nañ ñoom borom xel yi ne yonent bi faaxa kawe na man xala naa ñi nga xam ne maanaam dañoo fës dañoo feeñ mu jublu ci yonent yi gaa baax yépp mu ne ñi am xel xam nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam féete kaw ci ñëpp loolu rek la bëgg wax ci béy bi waaye nag borom xel yi lay wax parce que yàlla rek bi wax ci alquran borom xel yi lay waxat fee ci mii mi waxoon na ne dof sax xam nañ ko ñi manqué xel ñi manqué xel sax xam nañ ko mu ne fii mu ne ñi am xel nag xam nañ ne yonent bi nga xam ne da da ne ay jëfam ay mayam ne fang ñëpp di ko gis mu julli ci moom ne yàlla na yàlla sëlmal ci moom moom yonent boobu nee na borom xel yëpp xam nañ ne kat moo féete kaw ñëpp dara xam na sawul borom xel yi anal Moustapha naka kañu tànn ka xala naa ci lu feeñ nga xam ne amul sikk saak kii moom dañ koo tànn ci lu feeñ yàllaa ko wax ci alquran ñëpp xam ko mu ne xale yi kooku nag yàlla yàlla dégg nga xale yàlla doole nekk ci moom taslimu rabbi salmuluk sama borom ñoom xam nañ na faaxa kawe na man xala naa ñi nga xam ne dañoo fës mooy ñi ne fàng te nga dalee ko ci yonent yàlla Ibrahima ba ci Nuux ba ci Aadama ñooñu mooy man xala naa mooy ñi ne fàng xam nga yonent ci boppam xalaan rek la dana fàng waaye ñoom it dañoo feeñ nëbuñ ñoom ñëpp moo kaw mu ne subhaana rabbika tudd na ma sell ak buur bi yàlla muy borom tedd nga amaay si foon wala si lépp ñu koy melal ci ay doom ak i caaju salaamun jàmm alal mursalin yàlla nekk ci mboolem ku yàlla mos yónni wala xam du meloo sax bàkk rafet lii laay aji sax la ñeel yàlla rabbil alamin muy borom borom maa ngi tudd sax sell yow mi borom tedd nga maa ngi lay sori lépp loo xam ne ñu ngi koy bokkaale ay doom ak ak yàlla nekk ci mboolem ku yàlla mos yónni melul sax bàkk rafet aji sax la ñeel yàlla moom mi borom bi defi kon xasida googu ba tey jeex na muy indiwaat geneen goo xam ne ba tey Muhammad la ko tënkee dégg nga tey da ciy tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne wasalla yàlla sax dàkk julli ala sayyidina ci kaw sunu sang bi wa mawlana tey sunu kilifa alla si mooy ki nga xamee ne ma daxtoo tagg naa ko bi hurufi ismi yi ci hurufi turam yi Muhammadu te mooy turam yi di Muhammad laa wax mu ne yow sunu borom yàlla nga sax dàkk di julli ci yonent nga xam ne mooy sunu sang bi di sunu kilifa man sëñ Tuubaa Muhammad moomee may wax nga julli ci moom nag nga xam ne mooy sunu sang bi li suñu kilifa mooy ki nga xam ne tagg naa ko ci xuruf yii te mooy turam yii la jël jël miim ga wéy ko tagg ci yonent bi xaaga miim ga daal ga dégg nga yépp mu tagg ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax mu ne allah si madantu bi xurufi ismi kon mi ngi koy tagg tagg yi lay nettali nii mu ne man saruhu kawnu rabbil arsi malikuhu wa kawnu ahmada xayral xalqi fan wahada hawa muhammadun al muxtaaru suudaduhu qabla inqilaaqi jamihi al xalqi munfarida muhammadun laysa وفي التي قد مدى سرواه لم يردا مها دلالا وكفرا كنفاق معا عليه تسليم مخن لبيس الصمدا دعا مدادي واخلامي لقمته قود الورى التي قد كان لي بهدى gis nga ko mu ne man saraxoo maanaam koo xamee ne maanaam dana ko bégloo kawnu rabbil arsi nekku yàlla muy borom aras maliko muy aji moom wa kawnu ahmada xayral xalqi ak nekku ahmad mi nga xam ne mooy ki ngeen ci mi def yëpp foofu kookee mooy xaddaa len rek la mooy mu fexe rek jub mu ne ku bëgg yàlla ak yonent bi maanaam dégloo ko rek faaw mu jub mëntu ñàkk <laughs> ndax wax ji frank lay te yomb te yomb max naa mu ne leen rek la boo bëggee yonent bi di la ngay bég nga nga bëgg yàlla bégee la ngay bég ah nee na benn galaaj rek la ba tey jubal rek waaw jub ci la lépp nekk yaa ngi dégg ma Mamadou Mountakha mu di ko wax waaw ah, boo jubee boo jubee sëñ Sidi Muxtaar moom bañ ne ko ba daanaka bu dajalaan mbooloo mi jub rek la daan waxtaanee njub ku jubadi danga dégg maanaam du teggi dara lépp lu ñuy teggi ku jubadi moom du ca du maanaam du ca teggi dara. jub nag ci la lépp nekk baat la bu euh, bu gàtt nii. waaye moo làmboo lépp parce que yàlla bi mu wàcc suuf rek jub rek la bëgg alquran lu muy bëri bari njub rek lay jàngale waaw léeg fi gis yëpp ñi dëng rek lay jàjji ñi dëng rek waaye njub rek la bëgg ñu jaar jub rek moo ta bi mu siggee téere mu ne hudan lil muttaqina ñi ragal yàlla mooy ñi koy am. ñi jéem a ragal ragal yàlla kem seen kattan fattaqulaa mastata'tum ñooñu ñooy am njub gi. mu ne man saroo mooy mooy koo xamee ne maanaam bëgg na muy belli mu di ko bégloo kaw nu rabbil arsi nekku borom aras maalikoo muy aji moomam maam daal ku bëgg yàlla di ko bégloo muy belli ci waxtu ne di bég wa kaw nu ahmada xayral xalqi ba tey nga bëgg nekku ahmad mii di ngën ci mindeef di la kontaanloo ngay bég di belli foofu wa kookee xaddaa leen rek la mooy jub jubal rek am nga ngërëmal yàlla boo jubee am nga ngërëmal yonent bi te ñaar ñi ku am seen ngërëm dootoo jaaxleeti dootoo ñàkkati ngërëm. mu ne xawaa làq na Muhammadun Muhammad al Muxtaar kat kuñ tànn soo dadoo ak cangam xablan xilaaqi njëkk yàlla di amal mbindeef yi xablan xilaaqi njëkk ak xob bi jamiyal xalqi mboolem mbindeef yi mun farida yàlla muy aji wéet mu ne yonent bii di Muhammad sallallahu alayhi wasallam moom mi nga xam ne mooy ku ñu tànn ki mu ne làq na ak càng ñi ko càng ndax bi mu la mooy la waxoon ba tey ci xasida lam yabdu la woo siyaadatul baran xam nga yonent bi lu ñuy tuddee martabam càng bi yàlla dajale roo yi la ko am ca yow ma alastu bi rabbikum boo déggee xablan xilaaqi biin xilaaqul wara min xaaliqin asama wax na ko ci mimiya wax na ne lawlaa nabiyu rasulullahi man jalabat mawaahibullahi lil axyaari wal ulama bu taxtoon yonent bi borom xam-xam yeeg awliya yi nit ñu baax ñëpp may yañ yore kenn du ko am yonent bi rek moo tax ñu am yooyu fii mu ne nag yonent bi làq na ak càng ñi ne ko keñ la bi mu bi mu ci màkk wala bi ñu ko yónnee mu ne déedéet balaa yàlla di jëlee mbindeef yi ci am ci maanaam balaa yàlla di jëlee mbindeef ci ñàkk dina indi ci am xam nga mbindeef yëpp ci ñàkk lañ bay ko yàlla moo leen indi ci am mooy ñëw gi ñëw ci àddina yàlla moo leen amal waaye am na jamono kenn amutoon nekkuñu woon dara moo tax ñu naan doomu aadama du dara boo déggee ñu du dara mooy nekkutoon dara yàlla neex mu amal mbindeef ci coobareem képp te itam day day day delluwaat ba tey ci ñàkk rek mooy dana faatu ba tey ñàkkaat yàlla nag mooy koo xam ne moom fi mu wuteeg jàmm ñëpp moom ñàkk jiitul ko te ñàkk du ko dab te ñàkk du ko gaar mbindeef bu ne ñàkk jiitu na la te dana la gaar te dana la dab gis nga tabaarakallahu ci anam yëpp nag bu dee ñàkk wërsëg bu dee ñàkk alal bu dee ñàkk tiraanga bu dee ñàkk xéwal yëpp mën na laa dab ba mu des yàlla kon Muhammadun Muhammad sallallahu alayhi wasallam al muxtaar kër kuñ tànn xawaa làq na soo dodohoo ak cangam kañ la ko làq xablan xilaaxi njëkk xob jamihal xalqi mboolem mbindeef mun fa da yàlla muy aju yëpp balaa yàlla daal di jëlee mbindeef ñu tukkee ci ñàkk ñëw ci am booba la ko yàlla euh, roof ci moom martabaam càng mu doon càng ñëpp mu ne Muhammadun Muhammad lay sa yaati du dikk mukk misluhoo kemam abadan faw wa fii la si ak la nga xamee ne xan ma da wëy na sarwaaxu moromam lam yëri daa ba tey du rot mu ne yónent bi daal boo doon xool a ci lu ñëw ci lu teew ak lay la woy yëpp am ku mel ni yonent bi daal ku dootul amati moom dootul ñëwati jamono moo tax mu ne Muhammad du dikkati mukk ku mel ni moom ku mel ni moom bi mu xasee dikk ku mel ni moom dootul dikkati ca la woy itam maanaam moromam ku mel ni moom dikkutoon wa fii la si ca la nga xëy na xan ma daa wéy na sarwaaxu moromam ba tey lam yi daa rootok lay sa yaati mis lu abada mooy ci luy ñëw ku mel ni moom dootul ñëwati wa fii la si xan ma daa sarwaaxu lam yi daa mooy ca woy ba tey mooy ku mel ni moom ñëwutoon dégg nga maha dalalan wa kufran ka nifaaqi maan ali taslimu muxnin la misal samada maha farna moom yonent bopp gana bi mu juddoo dalalan réer wa kufran ak kéefir ka nifaaqa ni ki naafiq maan yëpp ali yandu du lay nekk ci moom yonent bopp taslimu muxnin sëlmalug yàlla muy aji doylu ji lam yasal moom mi nga xamee ne du dañ mukk samada doon ku ñëpp jëmale aji tujulu ajjim ci kenn nee na yonent bi moo fi jëlee ñett yoo xam ne ñoo yàq penc mi ak fi bëri muy réer gu ëpp ak yàlla ak naafiq ñetti feebar yi ñoo yàq penc mi mu ne bi nag moo ko fi jëlee sallallahu alayhi wasallam moo fi jëlee ak réer ak kéeféer awalam yaraw annaa naatil arda nanqusuhaa min atraafihaa kéeféer dafay feesoon dell naafiq yi réer yonent bi ñëw di ko wàññi muy wàññeeku dégg nga moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo fi faree ak réer ak kéeféer dégg nga niki naafiq yi xam ne kenn mënut a xam fi nga bokk kenn mënut a xam julit nga wala doo julit laa ilaaha walaay wala ilaaha kooku yonent bi moo teqale ñoo ñëpp ñu mën leen di xàmmee dégg nga fu ne ku réer da nga ko xàmmee ku weddi yàlla da nga ko xàmmee naafiq sax da nga ko xàmmee fu ne jamono ji xam nga kenn xàmmitoon naafiq waaye fu ne mandarga naafiq yonent moo ko jàngale nga xam ne tey da nga gis nit ki même doo ko wax sax ci salaam waaye da nga xam ne kii am naafiq la waaw da xam ne ndax ni muy doxalee rek moom la la yonent bi jàngal mu ne yonent boobu sëlmaluk yàlla muy aji doylu ji nga xamee ne moom dafa doylu ba ñëpp dañuy jublu ci moom am lu ñuy soxla ci moom te jublu te jublu moom jëm ci kenn mu ne daxaa midaadi wa axlaami li xidmat yi xawdul wara li la si xat kaana lii bi huda daxaa woo na ma midaadi samay daxa wa axlaami ak samay xalima li xidmat yi ma jëm ci di liggéeyal xawdul wara ka nga xam ne mooy ki womat mbindeef yi lii la siy jëmee leen ci ka nga xamee ne xat kaana nekkal na lii ñeel ma bi huda ci li nga xam ne moo di ak njub nee na sama daa daal ak samay xalima liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko woo yonent bi nga xam ne mooy kii xëcc mbindeef di leen woomat jëmee leen ci mi nga xam man borom Tuubaa yàlla daf may nekkal ci njub mooy daf may orienté di ma teg ci yoon ma teg ci waxtu ne moo tax kon nag mu li ma wo li wo sama da ak samay xëlim daal lenn la dara taxul koo jóg daal ci gàttal mooy di liggéeyal yonent bi nga xam ne mooy womat mbindeef yi jëmee leen ci yàlla mi nga xam ne moom yàlla moom man na ma mu ne nag wa sallim wa barik ali wa wa sahbi abadan ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tasliman ba tey mu dellu sëlmalaat ci yonent bi dolli barki ci kawam dagaan ko ci yàlla mu defal ko waa këram ba tey ak saabaame moo tax ma ne wa sallim yow yàlla yàlla nga sëlmal ali ci kaw yonent bi wa nga dolli barki ali ci kaw yonent bi ba tey ak ñoñ ñëw sama bi ak saabaami abadan faw yàlla yàlla nga sëlmal ci kaw yonent te dolli barke ci kawam waaye sëlmal ci waa këram ñëpp ak saabaam yëpp te dolli barke ci ñoom faw mu ne ahadali janaati adnin tajri min taxtiha lanhaaru maahil hijri yaquudi lil qur'aana sul muqaalafa wa xaada lil amna walan uqaalifa allahuma salli wa sallim wa baarik ala man ahyaytu bi haasil abyaati yowma mawlidihi haasa sayidina wasilatna ilayka yaa qaribu yaa mujibu yaa badixon muhammad léegi nag mu indi ñaari bayit yoo xamee ne da ciy nettali yi nga xam ne suñu borom da koo dig ñu ragal yàlla ñi te moom kenn jiituwul ko ca moo tax mu ne ahaada paraparel na lii ñeel ma moom yàlla ahada paraparel na lii ñeel ma janaati adinin aljanay beel ja nga xam ne tajiri dana daw min tax te ca ronam al anhaaru deex yay ñeent maayil hijri yàlla muy aji far ciiraay ga yaqoodu koog dana womatal lii jëmee ci man alquraan jëmmi téer bi di alquraan sol mu xaalafa yàlla muy borom wuuta wu sol mu xaalafa yàlla muy borom wuuteeg lépp lum sàkk waxaade wo mat na lii jëmi ci man al am na sécurité walan uqaale fa te dit may wuuteeg moom mukk mu ne yàlla parpal ne ma aljana ja nga xamee ne foo jàng ci alxuraan yàlla mu ngi naan jinaatu xat ni tëjee mi tala naaru waaye ba muy firi ba muy firi deex yooyu de ñeent mi ngi ko firee ci suratu Muhammad ñu ko wax xitaal yi muy deex ak ndox ak deex ak ak soow ak lem bu dee lem gi dañ koo segg mu set wicc bu dee ndox mi kasaalika bu dee soow mi benn bu ci nekk yàlla nettali na ko nee na nag man loolu yàlla ci boppam préparel na ma ko man ca laa war a jëm moo tax ko ànd ak borom tubaa sa xel day dal sa lépp day tranquille kenn maanaam xelu kenn gëntu dal xelu ko ànd ak borom Tuubaa waaye nag nga jaar fu borom tubaa jaar waxuñ ngay askanale sa bopp borom tubaa te nekkoo ci ay digloon di baay ay teram mu ne yàlla nag mi nga xam ne moom moom alquran te wuuteeg lépp lu mu sàkk nii la wuuteeg dara moom yàlla nee na jox na ma alquran jox na ma sécurité te man maanaam lu ma neex neex na yàlla lu neex yàlla neex na ma du ma wuuteeg yàlla mukk ci dara ci lenn dégg nga sëriñ bi lu nekk rek yàlla ko ko sant du wuuteeg yàlla kon ahada paraparal na lii ñeel ma janaati aldinin aljinay biel mooy aljina yoo xam ne ku fu dugg doo génn janaatu aldinin tajiri aljana ja nga xam ne dana daw min tantea ca ronam al anhaaru dox dex ya ñeent moo xam dexu ndox ga wala sàngara ga wala soow ga wala lem ga maayil hijri yàlla muy aji far ciiraay mooy yàlla muril na ko ci ray muy gis maanaam mboolem dex yoo jën ñeent fi ñuy béy ko ak fi ñuy jëm yëpp na aljana tabarakallahu te ñu nettaloon ko ci fatul wahab mu wax na ci bismillahi rahmaani rahiim benn bu ci nekk ca lay génnee mu ne yaquur dana womata li jëme ci man alquran alquran sool mu xaalafa yàlla muy borom wuuteeg lépp lu mu sàkk waxaade womata na li indi ci man al am na sécurité wala nu xaalife te den may wuuteeg moom yàlla mukk allahuma yow sunu borom sal yàlla nga sax dàkk di jël wasalim te salmal alaa man ci kaw yonent bi nga xam ne enjeetu dundal naa bi haas yi yaat yi ab yaat yow ma mawlidi ci bis bi mu gane jamono xaasaa kii Seydina mooy sunu sang bi dégg nga yow ma mawlidi ci bi nga xam ne ci la gane jamono xaasaa bii Seydina ki nga xam ne mooy sunu sang bi wasilati tey sama wasila ilayka jëm ci yow yaa xaribu yow muy aji jege ji yaa mujibu yow muy aji wuyu ñaan ji yaa badiyo yow muy aji fent lépp ta xooloo ko fenn mu ne yow sunu borom yàlla nga sax dàkk di julli te sëlmal te dolli barke ci yonent bi nga xam ne dundal naa yi bay mono bii xaasaa boobu jublu ci yonent bi waaye bis bi la ci jublu muy yomal isneeni di laylatu yab bi fukki fanak ñaar ci rabiul awal mu ne kooku na nga xamee nag bayit di dama ko dundalee ci euh, bis bi mu gane jamono moom yonent bi sallallahu alayhi kooku nag sunu sang la moo dox sama digganteeg yow mooy sama wasila jëm ci yaw yow yàlla mi nga xam ne xarib nga mujjib nga badion nga yaay ku jege gi tey aju ñang ñaan ji tey aji fent lépp te xooloo ko fenn mu dalaat geneen mu ne malaktu xayral wara bisran minal xidami alayhi taslimu baaxin jalla an adami malaktu jox naa malaktu moom loo naa xayral wara ngën ci mbindeef bisran mbégte minal xidami mu tukkee ci liggéey bii ma koy liggéel xale yàlla doole nekk ci moom taslima baaxin taslimu baaxin sëlmaluk yàlla muy aji des ji nga xam ne jàlla koog jomb na dégg nga an xadami walis muy tukkee ci ñàkk mu ne moom loo naa ngën ci mbindeef ci sama liggéey bii ma koy liggéeyal moom loo naa ci mbégte moo xam ne day bég rek moom yonent bi yonent boobu maa ngi dagaan ci yàlla muy aji des ji sëlmalam salaatoom ak julleem ak sëlmalam na ko sotti ci kawam moom yàlla mi nga xam ne lu ñuy wax ñàkk muy bàyyeekoo ci dara kooku mustay la ci moom. yàlla sosowut fenn te moo fi jiitu lépp mooy albaqi waaye itam mooy alwujudu mooy albaqaaw ak alxidam. husna mawaahiba baaqin laa sarika lahu bi jaahi afdali man yamsi ala qadami husna laqi nanu ñun borom Tuuba mawaahiba baaqin may yàlla muy aji des ji nga xam ne laa sharika de xeeti génn aji bokkaale loo di ko ñal bi jaay afdali man ci darajaay ngën ci képp koo xamee ne yam si dana dox ala xadamin ak ñaari ndëggoom mu ne ñun borom Tuubaa bu ñu demee ba laq may suñu borom mi nga xam ne mooy ki fi des te du faata bu ñu demee ba laq ay mayam daal ñun borom Tuubaa bu ñu demee ba laq may yàlla yàlla mi nga xam ne genn génn aji bokkaale di ko ñal nee na ñi ngi ko amee ci barkeb yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne képp kuy dox ak ñaari ndëggoom moo la gën xam nga loolu muy tegtal rek yonent bi moo gën ñëpp rek ba tey mooy la waxoon rek lillaahi ci rek ak lillaahi rabbi la ci xat jaadali bi huda foofu yaa ngi dégg mu ne muhammadun xayru man yamsi ala qadamin muhammadun xayru man lillaahi xat sajida kuy dox rek ak kuy sujjóot ndax nit ñëpp ci diggante sujjóot ak dox ci lañ ne ñey sujjóot nag moo nekk julit ñi ñey dox te sujjóotuñ man nay nekk ay yéeféer mu ne daal moo gën ñëpp rek nga taggu rafet woowu mu ne am nañ may yàlla làq nañ ko ci barke bi yonent bi nga xam ne képp kuy dox ak sa ndëggu moo la gën moom yonentu salaasam mawaahibullahi takwinun bila kulafin waxattuhoo bi wujoodi siina bil xidami mu ne mawaahibullahi may yàlla yi takk wii takwinun mooy am nan ko bila kulafin ci lul benn coona dégg nga waxattuhoo wéetal naa ko moom yàlla bi wujoodin ci am gim am te kenn amul ko am gi nga xam ne siina rafetalees na ko sax bil xidam yi jiitu bi nga xam moom la jiitu mu ne ñun borom Touba am nañ may yàlla yi amuñ ci benn coono ak jafe-jafe waaye wéetal naa yàlla ci am gim am te kenn amalut ko te am gi sax lu muy taaru taaru li ko gën a taaral mooy jiitu xam nga tey boo jékkoon rek ne yàlla am na te kenn amalut ko yaa ngi xalaat na waaw waaw loolu moom nu muy mën a demee waaye loolu lu ñuy gëm la rek ci xol xam ne daal yàlla moo fi jiitu te jiitu waan fu mu tàmbalee mooy ki am te amalut ko waaye boo gënoon rek ne al wujud la te indoo man mantu nekk dégg nga waaye boo ne wujud na xidam rek kon da kon ndeke am gim am te kenn amul ko ndeke kon mu fi jiitu kon da kon dàq dàq na lépp mooy am lu fi jiitu waaye boo noon wujud rek la ko am la te kenn amul ko kon mën naa am kon dafa am lu fi fekk ba noppi not ko waaye nag li tax nag mooy xidam gi moo rafetal wujud gi mu ngi mel ni nga sol ñaari yiri yu àndul rek. ni ngay ñaawee war a ñaari dàll yi nga xam ne ànduñ ni muy ñaawee moo tax waxatoo wéetal naa ko bi wujjoo din ci turam wii di wujjoot mooy nafsiya mooy am te kenn amul ko nga xam ne wujjoot gi sii na rafetalees na ko bil xidimi jiitoom gi yàlla daal li ko rafetal mooy jiitu gim jiitu maanaam taxul fu mu tàmbalee am gim am te kenn ko boo ko doon misaal daal li ko rafetal taaral ko bañ man koo takk ci xel man koo xam ta nangu ko mooy jiitu gum jiitu te amul fu mu tàmbalee mu ne madattu lil maalikil baaqil muqiiti yaddi wa maddali minhu nafon daa imil xakami madattu tàllal naa lil maaliki jëmee ci yàlla muy aji moom ji al baaqi tey aji des ji al muqiiti tey aji xontu ji tàllal naa ko yi sama loxo wa madda tëbbu na lii jëmee ci man minu tukkee ci moom nafon daa imi njëriñam yay aji sax al xakami kay ajaate njëriñam moom mi nga xam ne nafon daa imi mooy njëriñam moom mi aji sax al xakami tey ajaate ji nee na tàllal naa sama loxo jëmee ko ci ñetti turam yi. Malik kanaa mooy koo xam ne la la la boo tàllee sa loxo jëmee ci moom kanaa soxla nga dara la nga soxla moo ko moom dégg nga waaye ba tey mooy albaqi boo ko tàllalee keneen koo tàllal bis dana ñëw doo ko gis ndax dana faatu waaye boo dëkkee tàllal yàlla yàlla albaqi la du faatu ba tey mooy almuqit moom du fa dëkk ci xontu koo mën a tàllal ku dul yàlla dëkkul ci xontu dégg nga kon tàllal naa jëmee ci yàlla muy aji moom ji tey aji dex ji tey aji xont ji sama loxo ñu ne ko ndax ba nga tàllee jox nañ la mu ne yàlla tëbb na ma moom mi aji des ji tey aji hàtt ji njëriñam yu dul jeex mukk kon boo bëggee njëriñ yuy sax di ñëw ci yow waxtu ne tey ngay tàllal yàlla te bañu tàllal mbindeef mu ne daxaami daa di waax laa mi li xidmati yi ihya usunnatihi bil hukmi wal hikmi daxaa woona mi daa di sama daxaaw axlaami ak sama xalima li xidmati yi jëm ci liggéeyal yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam usunnati dundal li nga xam sunnaam bil hukmi ci hàtte wala hikami ak i ay xam-xamu hikam mu ne li ma woo sama daxa ji ngir may bind ak xalima yëpp gannaaw ba liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàlle mooy liggéey bi ci boppam dama ci dundal sunnam sunna si dafa deewoon ba nar ma ñëw nag bëgg koo dundal sunnatuhul xara wa inni ahmadu dégg nga kon mm, mm, boo déggee baatab jaddit mooy looy yeesal am fekk nga benn mu xoomaat walla mu màggat bu doon ak fas yooy na mooy làpp na gisul ku ko jox ngooñ gisul ku ko jox dugub loolu la sëñ tubaa fekkoon sunna ci boppam muy yooxoo noonu làppee noonu gisul kenn ku ko toppatoo sëñ tubaa dundalaat ko kon boo déggee dundalaat rek mooy lu làpp loo xam ne daal loxo yam nekk neexuñ ko nga jële ko ci loxo yooyu nag yoreel ko sa bopp tabaarakallaahu kon moo tax mu ne daa woona ma mi daa di sama daxa way aqlaami ak samay xalima li xidmati jëm ci liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam lan moo ko mu ne ihya usunnati dundal sunnaam bi lu ko mi ci atte wali ak xam-xamu dégg nga dégg nga mboolem xam-xam hikam yi moom lay dundalee sunna waaye ak àtte yu yi nga xam ne dafa dëppoo ak sariya yàlla wax ko ci alquran yàlla ne na àtte moom ci yàlla rek lay dello yàlla mooy buur bi nga xam ne mooy kii àtte àtte bu mànd mooy ki jub ki kon nag moo tax àtte yëpp ñi bëgg ñi di ko teg ci àtte àtte bu mànd mel ni Omar ibnu Abdul Aziz nam daan àtte Sëñ Tuubaa misaal ko ca jawaahiru ba muy silkul silkul jawaahir ba silkul jawaahir ba kon xasida goog mel na ni foofu la yem moo indi nag tarjumaan joo xamee ne ba tey geneen xasida ci lañ jëmaat mu daane tarjumaan muy xasida gi ñu nekkoon wa ali wa sahbi wa abli bi barakaati mawlidi haasa maa yuwafiqu wala maa yuwafiqu sanna wa yafuquhu abadan amin ya rabbal alamina ndax dafa julloon ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam te julli gutoon ci waa këram ña ndax tarjumaan ju njëkk ja dafa waxoon allahumma salli wa sallim wa barik kon julli na ci yonent waaye indiwut foon waa këram ak saaba yi fii nag mu ne julli goog na ñëw wa aali ba ci waa këram mu bi ak saabaam yëpp waxaab moom yàlla maa ngi ko ñaan mu may lii ñal ma bi barakaati mawlidi ci barkeeb gane jamono yonent bi xaasa bii muy bis bi mu gane jamono maa loo xam ne yu waafiqu mooy dana dëppoog asana njorto la waye fooxoo ta muy kawe njorto la abadan faw amin yàlla nga nangu ñaan yow yàlla yaa rabbal alamin yow yàlla muy borom bi defi mu yàlla yàlla julli ci waa kër yonent bi ak saabaam yëpp yàlla ngi koy ñaan mu may ma barke bi nekk ci bisu mawlid bi na ma ca may loo xamee ne dana dëppoog la ma doon jorto waaye sax dana faw sama jorto maa ngi koy ñaan yàlla mu may ma lool faw yàlla yàlla nga nangu ñaan jëmi borom bi ndefi mu indiwaat ba tey Muhammad ba tey di tagg yonent bi rek sallallahu alayhi wasallam ba léegi rek tagg bi mu ne Muhammadun xayru man qaaboo wa man xadoro wa xayru aatin wa taati minhu lil busaru xaasat bidaayatuhu ma aasuhul kurama inda nihaayati ma mislan lahu basru madal lahu huwa al urwatu al wusqa huwa al qamaru madal ilahu bihi lii ma talabtu wa ma faaqal muna wa bihi lii qad wa axlaami man faaqal wara ma bihi lii qaada muqtadiru cey borom tuba mu ne muhammadun yonent bi sallallahu alayhi man xaaboo moo ngën ci mooy ki gën ci ñëwee mooy ña fàddu wa man xaduroo ak ñi teew mooy ñiy dund wa xayru aatin moo moo gën ci képp kuy dikk waaw wa xayru aatin moo moom yonent bi moo gën aji dikk wataati dana dikk moom yonent bi minhu bàyyi ko ca moom lii ñëw ci man albusuru ay mbégte mu ne yonent bi daal xam nga ñett yi rek ñu am ñëway ñu teew ak ñuy dikk xaaboo mooy ñu faatu bu yàgg yonent bi moo leen gën xadroo mooy ñuy dund ci jamono jii may wax ak yow yonent bi moo leen gën xayru aatin ñay dikk ñëpp moo leen gën nee na yonent bam nag waxtu wu ne mbigam day tukkee ci moom di ñëw ci man borom Tuubaa xaasat làq maanaam ak tàmbaleem maa xaasoo la làq na ko alkurama way tedd ña hende nihayaati fa seen yemukaay maa mislan deetu kem la xoo di ko ñeel basaru benn mbindeef mu ne daal boo doon xool waxoon na ko ci gannaaw ba tey lu mel ni waxoon na ci gannaaw lu mel nii waxoon na ko ci gannaaw daanaka bayit bi rek moom la waxaat mu ne daal boo doon xool ñu baax ñëpp yonent yëpp boo waxee yonent yi jarul ngay lim keneen fa seen maqaama yem nga xam ne yàlla rek ko xam fa seen maqaama yem foofu la yonent bi tàmbalee jëm kaw moo tax mu ne maa mislan loxoo basaru kooku mëntu niroo kenn kay maa mislan loxoo basaru moom rek moo ci yàlla amul benn mbindeef bu mel ni moom waaw lépp loo nettali ci yonent yi baaxee ba jàpp ne lii mooy seen wàccuwaay fa yàlla foofu la yonent bi tàmbalee jëm kaw kooku kenn du ko kenn du ko daj kenn du ko dab kenn du ko jot dégg nga fi ñëpp yegg ba góor ba sonn moom foofu la dalee maanaam yàlla tëbb ko kattanu kattanu koo xam ne dafa am ñeent fukki at madal ilaahu lahoo mamtadatil fudala lahoo huwal orwatul wusqa huwal xamaru madal tàllal na ilaahu buur bi lahoo jëmee ci moom yonent bi mamtadati la tàllaloon na ko alfudala way gën ña way way gën ña mooy yooyu baax ne muy yonent rek lahoo ñeel na ko huwa moom dégg nga alxorwatu mooy buum nga alwusqa ga gën a dëgër huwa moom ba tey alxamaru mooy weer wa mu ne sunu borom lépp lu joxoon lu waaju baax rek jox na ko yonent bi lépp lu mu joxoon waa ju baax rek jox na ko yonent bi moo tax ma ne bi daal mooy buum gu gën a dëgër ci buum yépp ku ko mooy jàpp nga ci buum gu dëgër gi mooy weer yi wi nga xam ne bu génnee ñëpp lay leeral biddi yi wër ko kon mada tàllal na al yàlla muy buur loxoo jëmee ci yonent bi mam tadati moom yàlla lam tàllaloon alfudala woy gën ñi lépp tàllal na ko loo jëmee ko ci yonent bi xuwa moom yonent bi ca dëgg-dëgg daal bu leen koy dégg nga euh, xamleel daal alxoratu mooy buum nga alwusqa ga gën a dëgër moom bu leen koy xamal alxamaru mooy weer wa bidiw bidiw yi wër ko ba tey mu ne madda tàllal na al ilahu yàlla muy buur bii ci barke lii ñeel ma maa talabtu la nga xamee ne doon naa ko sàkku dégg nga wama faaqa ba jox na ma sax loo xamee ne féetee na kaw almuna sama mbébét waxat safaata moom yàlla sellalee na lii ñeel ma bii ci barke bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alxamru li nga xam ne moo di dund gi mooy sama dund. booy xool xasidi gi dafa mel ni jàngoon nañ ko ci gannaaw waaye da koo delloo siwaat waaye booy xool foofu moom allahu muhammad la ko boolee toon boo xoolee paas we paas we indi na fi xasida gii mahamadun xayra man xaaboo ba man xaduro bam jeex waaye foofu moom da koo boole geneen xasida goo xam ne allahu la ko tënkee mu jël muhammad ga boole ko allahu googu fii nag moom muhammad gi rek la fi indi maanaam di ci tagg yonentu salaay salaam dégg nga waaye ba même xasida gi rek indiwoon na ko ci gannaaw waaye fii moom da koo boo da koo def muy benn muhammad bi rek mu di ci tagg yonent bi bu dee ci gannaaw nag ci maanaam boo xoolee paas we danga fekk moom allahu la ko booleeg mooy firi nañ ko romb nañ ko. kon tabaarakallahu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi noonu Serigne Touba nee ne sunu borom tabaaraka taala dana ma tëbbu wala tëbbu na ma ci barke bi yonent bi lépp lu ma doon wut daal jox na ma ko ba jox ma lu faw ko sama mbébét te yàlla sama dund gi mi ko sellalee ci barke bi yonent bi sallallahu moo tax ma ne ma da tëbbu na al ilaahu yàlla muy buur bii ci barke bi bi lii jox ma maa talabtu lépp lu ma doon sàkku wa maa faaqa ba jox ma loo xam ne kawe na sax almunaa sama mbébét waxaat safaata moom yàlla sellalal na lii ñeel ma alxamaru dund ga bii ci barkeb yonent bi daxaa mi daa di wa axlaami li xidmati man faaqal wara maa bihi lii qaada muxtadiru daxaa woo na ma mi daa di samay daxaa wa axlaami ak samay xalima li xidmati man jëm ci liggéeyal ka nga xamee ne faaqa kawe na alwaraam bindee fi lan moo la woo mu ne nag liggéey boobee ci woo mooy sama daa ak sama xalima ci boppam liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi mi nga xamee ne moo féetee kaw mboolem bindee fi moo ko woo ngir muy julli ci bi di ko tagg. moo tax mu ne maaloo xamee ne xaada womatal na li jëmee ko ci man bii ci barke bi yonent bi muxtadur yàlla muy ya yàlla muy ajaam kàttan ji. samay daa ak samay xalima maanaam woo na ma ngir ma liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi mi nga xamee ne. moo faw ko mbindeef yëpp moo leen féetee kaw yàlla yëkkati na ko teg ko ci kaw mboolem mbindeef yi. na nag gannaaw ba ma jogee di liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam moomee sunu borom yi ajaam kattan ji loolee ma taxoon a jóg te daxa ji woo ma ci ngir may liggéeyal yonent bi sunu borom tëbb na ma lépp jox ma ko. daxa woo na ma daal di samay daxa waa xalaami ak samay xalima li xidmati man ma jëm ci liggéeyal ka nga xamee ne faaxa kawe na alwaraam mbindeef yi maa loo xamee ne xaada may na mooy womatal na lii jëmee ci man nga muxtadir yàlla muy ajaam kattan bii ci barke bi yonent bi li ma yàlla womatal daal dafa jëfandikoo sañ-sañam ci kattanam jiggi ci coobareem ci barke bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jox ma ko te lépp maa ngi ko amee nag ci liggéey bi may liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga ne mooy ko féetee kaw mboolem bi def yi xasida goog jeex na di Muhammad mu dalaat geneen xasida ba tey goo xamee ne Muhammad lay nekk mu ne awonsu danaa muslu billaay ci kàttu yàlla mi ne seytaane ci seytaane arajim kadu kuñ jàmmuli si rimandi yàlla bismillahi sos na ma sama wax ci ci tudd turu buur bi arrahmaani buur bay xéewalaa kon bépp ku soob ci alaxira nee muslu ci kàttug yàlla yàlla musal ma ci saytaane sëril ma ko dàqal ma ko maa ngi tàmbali ci turu suñu borom yàlla muy xéewalaa kon ñëpp ci àdduna te yaa jërëm ku soob ci alaxira allahumma yow suñu borom salli yàlla sax dàkk di julli wa salim te salmal wa barik te dolli barke ala sayidina ci kaw sunu sang bi wa maulana tey sunu kilifa te dolli barke ci yonent bi nga xam mooy sunu sang bi di sunu kilifa turam mooy Muhammad sallallahu alayhi mu tàmbali xasidi gi ne mat u rasulil karimil basitil ajabi minal day daynun li ilaa rajabi mat u rasuli tagg ndaw la yàlla yónni ca mboolem bindeef al karimi kadi aji tedd mu yonent bi al basiti kadi aji tàllal al ajabi keemaan ya minal muharami li ko tàmbalee weeru muharam daynun bor la lii ñeel ma man borom Tuubaa daf maa war muy bor la boo xam ne dama koo gàlloo ilaa rajabin jëm ba rajab mu ne tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne mooy rasul di kërim di baasiti moom mi nga xamee ne képp ku koy tagg mu di la tàllal ay keemaan nee na daal ci gàttal tagg ko moom yonent bi li ko tàmbale weeru muharam dégg nga weeru safar dégg nga ba jumaadul ula jumaadu saane muy weer yi ñu nekk moom la ñuy wax jumaadul ula jumaadu saane muy juróom benn weer yi nga xam ne daal da ciy tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu dee rajab moom ba muharramati juróom benn weer yooyu moom da ciy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon daal boor la boo xam ne da koo gàllu ci moom salaatu si temps bi mat si temps taat yi ba tax maati saa yi dégg nga yamini alayha daynu xattin xawaaridan bi xidmati xilisil madinati sahadi yamini alayha daynu xattin yuri sunan safihen kafaani doonu durin sawil baxi wax na ko fu ne kon mat wu rasooli tagg ndaw la yàlla yónni ci mbindeef yëpp alkarim kadaa ji tedd albatil kadaa ji tàllal alxaji bi keemaan ya dégg nga minal muharimi tagg ko li ko tàmbalee weeru muharam ilaa rajabin jëm ba rajab kooku day nun bor la lii ci man maanaam daal bor la boo xam ne faaw ma def ko te lépp matal na ko. xustu laq naa almawaahiba may mayu rëy rëy almawaahiba maya ni man tukkee ci ka nga xamee ne laa sadiqa déet xeeti genn aji bokkaale loo di ko ñal bi mat i man ci tagg yonent ba nga xamee ne mat woo aw tag yi ma koy tagg yun ji dana ma muccal mina riibi ci lépp luy sikk nee na laq naa may may yi nga xam ne ci yàlla la tukkee yàlla mi nga xamee ne nireewut ak kenn te kenn du ko bokkaale kenn dégg nga ndax moom lépp lu nekk ci moom rek ci moom rek la nekk nekkul ci kenn kooku mooy laa sarika lahu mooy koo xam ne kenn du ko bokkaale kenn ak moom bu dee ci jëmm bu dee ci melo yëpp kooku moom da caa wéet nee naa tag yi may tag yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo musal ci lépp loo xamee ne xeeti sikk la waaye ci laa jëlee may yooyu bàyyi ko ci yàlla di ñëw ci man kon ci la mucce ci lépp luy sik yi nekk ci xol waaye ci la amee may yuy tukkee ci yàlla ci tagg yonent bi sallallahu rek mu ne madantuhu matuhu bin saadiqin walahu alayya ihyaa'u ma yakfil ida bi yëbbi mu ne madaxtu mu ne tagg naa ko matahu bin taggu sopp maanaam ki ngay tagg nga sopp ko xam nga nit dana tagg di te du ko sopp waaw day am mu ne madaxtu tagg naa ko mu yonent man borom Tuubaa matxa hubbin maanaam tagguk sopp saadixin guddaa ji dëggu nit dana sopp sax te sopp gi dëggul waaye hubbi saadixin nag mooy jafe mu ne tagg naa ko tagguk tagguk sopp gu dëggu goo xam ne li ma koy wax ak tag yi ma koy tagg dafa dëggu ci man moo nekk ci man te li ma koy wax moo am ci moom dégg nga mu ne wala ñeel na ko xaale war ma man borom Tuubaa ya uma dundal la nga xamee ne yegg fii loolu nga xam ne daan ma fegal alxem daa samay noon bi yeb bi te mooy bi mu ne kon gannaaw yonent bi ba ma ko tagee taggu taggu woo xamee ne dafa dëggu ci man hubbin saadiqin la mu ne damaa warlul di dundal li nga xam ne moo may fegal samay noon ta mooy baatab bi yeb bi mooy baat bu të mboolem borom xam-xam yi xam nga euh, jotoon nañ ko ci nuuru daare ni benn waaye mos na ma cee woo sax na ma baata biir bii benn borom xam-xam bu mag nee na xëy na sëriñ bi da cee jublu tabaarakallaahu sëñ bi nag doo bëri xam-xam boo jàngoon téere yëpp sax moom mbindam dana la të. la koy waral mooy ñàkk concentré wu gi nga cee ñàkk concentré wu boo ko gisee rek taxul nga mën ko firi. mu ne comme baata bi yëpp bi xii gañ jotoon ci nuuru daare ni xam nga xii gi xaagi moom kooku daaneel wéy rek la. mu ne la ca sëriñ ba namu euh, tabaarakallahu moo doon rek maanaam comme fukki fukki fukki fukki kii ak ñaar yi nga xam ne salawaatul xamsi boo xool julli juróom yi rakk yi ñu ciy julli yëpp boo ko xoolee yëpp yëpp boo ko dajalee fukk lañ ak juróom-ñaar mu ne sëriñ bi loolu ci namu xam nga foofu da ne wa juttali takkaru man bi demel day wax ne maanaam yow yàlla may nga ma say tiranga bi yëpp yi mu ne bi yëpp yi kon dafa wax yàlla may na ko ay tirangam ci maanaam salawaatul xamsi yi muy matal bis bu ne daal ci gàttal. nga xamul nuuru sax ni mu ñëwee boo amul sellu nuuru daara ni gis nga nim ci ñëwee sëriñ bi day def léeg-léeg juróom-benn bayit mu jublu ci juróom-benn weer yi moom la ci namu. léeg-léeg itam mu def fukki bayit ak ñaar jublu ci fukki weer ak ñaar nga xam ne booy xool buntu yàllaaw yaa raxmaan yaa raxiim yi muy def yëpp boo compter seeni bayit léeg-léeg gis bunt boo xam ne fukki bayit ak ñaar la mu jublu ci weer yi fukki weer loolu koy firndeel mooy buy bëy bëy bu mujj buy daan rek dana tudd dana ci tudd weer ba même bu defee juróom-ñaari bayit yoo xamee ne benn bunt la def juróom-ñaari bayit même bu bayit mujj bi la daanu dana ci tudd bis dana ci tudd fan fan nga xam ne kon juróom-ñaari yooyu juróom-ñaari bi ci am seen bi la ci jublu sëñ bi day wax baatab yebbu jublu ci fukki weer ak ñaar yëpp léeg-léeg sax dana ko wax jublu ci maanaam mu fukki fan ak ñaar yu yonent bi gën jamono fii moom moom la ci jublu dundal dundal gana a jamono yonent bi baagu njëkk gi kooku du compter waaw ah, baa gu njëkk di maanaam yaa geeg ba geneen baa gi rek mooy compter mu jublu ci bis bi rasulullah gën a jamono ñu koy wax laylatu yabbi dundal moom loo xam ne un yeetu bi nabi min asasi moo tax kon mbindam sëriñ baa noon noonu tabaarakallahu yàlla na ko yàlla fayal ma dem too tagg naa ko matahu bin taggu taggu soppu saarixin gudaa ji dëggu wala xoo ñeel na ko moom yonent bi alee war ma yaa uma dundal la nga xamee ne yëpp fii dañoo fegal année daa samay noonu bi yëpp bi te mooy maanaam weeru gàmmu guddi gi mu gane jamono tabaarakallahu moom yonent bi salaasam waxtu wu ne daal war war na ma di ko dundal dama ko war du sama jëmu ji te dundal gi ma koy dundal moo may fegal samay noon mat yi sama tagg loxoo jëmee ci yonent bi raada tàggatal na lii ñeel ma al ahda samay noon jumlatu mboolem seen waji wajihu te dana jëmale lii ci man maa ahwaa lépp lu may bëgg bilaa sababin ci lu benn sabab bi ci am nee na tagg gi may tagg yonent bi mboolem noon yi ma amoon tagg yonent bi moo ma leen tàggatal bañ nooy nepp sama kanam waaye lu may bëgg du ma wut sabab sax boo xamee dama koy jottali ko lu may bëgg rek day ñëw ci sansa lu dul may wut sabab du ma ñaan du ma def dara danga woo na mi daal di samay daha wa aqlaami ak samay xalima li xidmati jëm ci liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam lan mooloo mu ne sarful asa maanaam soppeeku lor li heda këpp ci kaw samay noon rabbi sama borom maa tab bi ànd koog ko ya mu ne li woo sama daa ak samay xalima ngir may liggal yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy sunu borom moo nam ma wëlbati lor yi noon yi amee woon nar ko këpp sama kaw ak seen toskar ga yëpp delloo ko seen kaw dégg nga moo tax kon nag ay daxam ak i xelimaam waxtu ne li tax muy liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo yàllaa ko naka yàllaa ko nam ma dimbale jël lor giñ ko nar a teg ay noonam yëpp këpp ko seen kaw moo tax mu ne daxaa woo na ma mi daal di samay daxa waa xalaami ak samay xelima li xidmati ma jëm ci liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam sarful asa li ma wool mooy soppaxndiku lor yi li leen jëm ci kaw noon yi rëbbi sama borom maa taw bi andi yëpp toskor yëpp daal ak lor gi jëmewoon ci man maanaam li tax may bind ci samay xalima ak samay daa mooy yàlla moo mën a ma moo mën a ma soppi lor yëpp këpp ko seen kaw. ba muy tàmbali dafa julloon ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba tey looloo ko dalaat ndax dafa waxoon ne allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina mawlana muhammadin dafa mu jullee ci yonent bi moo xam da koy tàmbalee tarjumaan ju njëkk ja faaw dana ko tëjee. moo tax ma ne julliwaaleel ba tey boo jullee ci yonent bopp wa aali julliwaale ci waa kër bu sama bi ak saabaam yëpp wa na nga nangu xaasil abyaat yi abyaat bi xadri asamati saadika ci kàttanu màggaayu su jëmu ji bilaa say tur dara loo xam ne yesoo uni dana ma naqari man borom tuba aw yaduru nii wala mu di ma lor abadan faw amin yàlla nga nangoo ñaan yaa rabal alamin yow yàlla mi borom bi dee fi borom boo julee ci ne du ci waa ak saabaam waaye bay di na ma ko nangul boo koy nangul na nga xool sa rek nga nangoo ko noonu te boo ko nangoo ba noppi dara bu ma naqarati bu ma dara naqar naqar bu ma am lu may naqarati mukk yàlla nga nangu ñaan yàlla mi borom bi def yi xasida foofu la yem tarjumaan ji mu tàmbaliwaat geneen goo xam ne ba tey même Muhammad la ko tënkee bismillahi sos na ma sama wax ci tuddu turu buur bi rahmaani buur bay xewlaa kon bépp mi def ci àdduna arahimi tey aj yërëm ko soob ci àlaxira allahumma yow sunu borom maa ñaan bi àq ba ji ci àq sa jëmu jëw yàlla taala yow aji kawe alkarimi tey aji tedd sali yàlla sax dàkk di wa salim te salmal kilifa Muhammadu turam mu ne maa ngi tàmbali ci turu sama borom yàlla muy xéwlaa kon bépp bi def ci àdduna te yaa jërëm ko soob ci alaxira yow sunu borom maa ngi dagaan ci àq si jëmu jëw yàlla yow miy aji kayo te aji tedd yàlla na nga julli te sëlmal te dollik barke ci yonent bi nga xam ne mooy sunu sang bi bi sunu kilifa turam mooy Muhammad sallallahu alayhi wasallam ba tey mayi ko sunu borom defal ci barke bi yonent bi rek lay nettali coy borom Tuubaa mu ne mawaahibul baaqil karimi samadi lii wasalat bil mustafa muhammadi bi jaayi asraaran tuddoom wa maliki ja'alani lahul qadim muhammadun alayhi taslima karim biis bihi li yaqudu ma arum du'a yastajaba man bihi qasal haniya ma lam yarduhu li fan qasal mu ne mawahibul baqi may yàlla muy aji des ji alkarimi tey aji tedd ji asamari doon kilifa gu ñëpp aji tujublu ajjëm ci wasalat eggali na ko lii ci man mooy jox na ma ko bil Moustapha ci daraja ka ñu tànn Muhammadin ta Muhammad mu ne borom mi aji des ji tey aji tedd ji te doon kilifa gu ñëpp jëmale aji te jublu aji jëm ci kenn nee ay mayam jox na ma ko mooy yeggale na ko ci man ci barke bi yonent bii di Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo tax nag xustu laq naa xawaariqa ay xar baax yu dul jeex bi jaay Ahmada ci daraja yonent bii di Ahmad xale yàlla na doon nekk ci moom yonent boobu taslima sakurin salaatu wasalaam ak yàlla miy santaakoon bi nga xamee ne humida kooku santees na ko. mu ne ah sunu borom tabaaraka wa taala defal na ma ay xar baax yu bari yu kenn mëntu lim xawaariqa sëriñ bi léppam xar baax la ndax nee ne suñu borom dafa jël dundam tëqali ko ay keemaan ay xar baax lépp yaaman bii laa sama ni xëyra ajib ngën ci keemaan dundam lépp dafa tëqoo ngën ci ay keemaan léppam keemaan la moom sëriñ bi xaadalahu laaw maxtaaraloo mu ne làq naa ay xar baax ci dara yaa yonent bii di Ahmad maa ngi dagaan ci yàlla muy santaakoon bi nga xamee ne jàmm ñëpp dañuy màmm jëm ci bam di ko sant salaatu wa salaamam yàlla na ko doole sotti ci yonent bi sallallahu alayhi nga mu ne madaliyal muxtaaru asraadan todoom wa maliki jaalani lahul xadim mada tàllal na lii ñeel ma almuxtaaru ko ñu tànn ka asraaran ay mbóot gis nga waxut benn siru de ay mbóot yoo xam ne tëddoom day sax faw wa maaliki yàlla muy aji moom sama jaale nii def na ma loxo ci yonent bi alxadim ma doon kuy liggéey katam boo déggee mu ne yàlla na ko mooy mu féete ci kaw ma doon alxadim koo xam ne day sax dàkk di di liggéeyal yonent salaasam moo tax mu taara ko mu def ko alif ak laam mun suñ borom yonent bi sallallahu alayhi wasallam wammatal na ma ay mbóot yoo xam ne day sax faw waaye suñ borom moo ma def ñi liggéeyal yonent bi yépp mu ni ma maay peewe loolu nag jagleeg yàlla la sakarto isqasani bi ximatil maay sani gam waxoon ci ges bu la te loolu teel na ko wax lool booba demagul ca géej ga kon yonent bi jox na ma ay mbóot yoo xam ne man rek maa ko xam tabaarakallaa tun mbóot yi waxtu ne dañuy dañuy sax ndax nit dana xam secret dootu ko xamati waaye mbóoti sëñ Tuubaa da ko yóbbaale barsàq da ko yóbbaale aljana léeg-léeg nit xam secret waaye ëdduna rek lay yem tabaarakallaa waaye borom Tuubaa moom mbóotami ci yonent bi ci yàlla bay ko moo tax da ko yóbbaale barsàq yóbbaale ko yomal xiyaam yóbbaale ko aljana kon yonent bi jox na ma ay mbóot yoo ne day sax yàlla mi ma mi nga xam ne mooy ki moom def na ma may liggéeykatam yonent bi mooy nangu na ko rek Muhammadul Muhammad Ali yàlla dool nekk ci moom Muhammad taslima karim salaatu wasalaam yàlla muy aji tedd biis bii moo kuréelam bi di saxaabaam yëpp yëqooru góog dana xomatal ma maa lépp lu may bëgg nee na yonent bi salaatu wasalaam yàlla muy aji tedd ji yàlla na koy julli ci moom faw moo kuréelam bii di saxaaba mi nga xam ne waxtu wu ne daf may womatal lépp lu may bëgg doa yee sama ñaan istijaaba nangu na ko man ka nga xamee ne xasal raxas na ani mu sërima lii ci darja yonent yi lii ci darja yonent bi maalam yar doo lépp loo xam ne gërëm la ko lii ci man fan xasal ta mu raxasu ba génn ci man. mu sama nangu daal yàlla mi ngi ko raxasee ba mu set wicc maanaam daal sama ñaan yàlla nangu na ko yàlla mi nga xamee ne lépp lu mu gërëmut ci man rek da koo raxas ci man mu génn ci man te dootuma ko jublu lu yàlla gërëmut ci man borom Tuubaa rek da koo raxas ci man da koo formaat ci man mu génn ci man. yàlla moom nag lépp lu ma ko doon ñaan mooy nangul dama ko ci barke bi yonent bi moo tax mu ne duwaa yi samay ñaan istajaaba nangu na ko man yàlla mi nga xamee ne xasal raxasee na bii ci barke bi yonent bi xanii mu sëri ma maalam yardoo lépp loo xam ne gërëm loo xun ma ko lii ci man raxas na ko fan xasal nag mu dem nag mooy génn kooku noonu mu tawaa la fan xasal mu mu te mu raxasu génn dem ci man mu génn rek sëri ma kon ba tey xasida goo gis nga ko tabaarakallaahu lépp di wane mayu ko yàlla defal ak yonent bi sallallahu allati qadayta li hawaaiji kullaha bi jaahihi sallallahu taala alayhi wa sallama wa ala alihi wa sahbihi waqriq al aadata bi haasi al abyaati li qarqan yurdika lii wa yurdihi anni abadan amin ya rabbal alamina mu ne nag allati yàlla moom mooy ki nga xamee ne xadda fajal na lii ñal ma hawaaiji samay haajo kullaha yëpp bi jaahi ci darja yonent ci la ma ko fajalee sala yàlla na julli alaaw yàlla taala yàlla ma aji kawe ali ci yonent bi wa sallama ta musalmal ca moom wa sama bi ak saabaam yëpp wax rek yàlla na nga xottil alxaadata xaada ya biyaasil abiyaata ci abiyaat na nga xottil xaada lii ñeel ma xarxan xotti ku xaada goo xamee ne dana la gërëm lo li la gërëm loo lii ma wa yur di waaye dana gërëm loo yonent bi xani ci man abadan faw amin yàlla nga nangu ñaan yaa rabal alamin yow yàlla mi borom bi ne fi mu ni sunu borom mooy ki amul aajo bu ma mos a am lu faj na ko ci barke bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla la sama aajo yëpp fajal na ma ko bi yonent bi kon nag maa ngi dagaan ci yàlla muy aji mu julli ci yonent bi te sëlmal ci moom julli ci waa këram ak saabaam yëpp te sëlmal ci moom maa ngi ñaan yàlla bayit yii na ma ci defal xarbaax goo xam ne dana ma neex neex yàlla dana ma neex neex yonent bi faw dégg nga léeg-léeg nga gis njabarkat yeeg ku ne di feeñal baax xarbaax te baax yi ci boppam xëy na neex na la waaye neexul yàlla neexul yonent bi te lañ yor kar xarbaax lañ koy tuddee baax dafa am loo xam ne lu neex yàlla la bu tukkee ci yàlla waaye nag su fekkee ci jinne wala siyaati ni la bay rek kooku moom mën na laa neex te naqar sax la lay gën defal booy xool njabarkat yi sax xarbaax yi ñu feeñal naqar leen di jural dégg nga bu dee xarbaax gu tukkee ci yàlla nag moom jàmm lay jural borom tabaarakallaahu ak confiance gu mat sëkk ndax da koy dimbale ci lu bari. moo tax mu ne ma defal xarbaax ci abyaat yi xarbaax goo xam ne dana la neex neex ma xarbaax goo xam ne dana neex yonent bi neex ma yàlla na ma ko dal faw yow yàlla muy borom bi def fi dégg nga fu ne ci nit yàlla ñi rek am na ñoo xam ne duñ nangoo feeñal xarbaax maanaam duñ nangoo feeñal xarbaax dañ koy bañ bala nit yàlla ñoo xam na duñ feeñal xar baax mokk te mi ngi feeñ ci ñoom waaye ñoom duñ ko feeñal kenn di ko xam kenn di ko gis am na ñoo xam ne tey buñ feeñaloon xar baax sax wallahi danañ tëdd seen lal di ko rëcc na lan moo leen ko def loo waaye nit ñëpp nag bokkuñ kon wax ri xal haadata bi hasil abiyaati lii xarxan yurdika lii wa yurdi ani abadan amin ya rabbal alamina yàlla na yàlla fayal sëriñ bi mu tàmbalaa gën a xasir goo xam ba tey day tagg yonent bi sallallahu alayhi mu ne bismillah yi sos na ma sama wax ci tudd turu buur bi arrahmaani buur bay kon bépp mi ndéef ci àdduna arrahimi aji yërëm ko soob ci àlaxira allahumma yow sunu borom sali yàlla nga sax dàkk di julli wa salim te salmal wa barik te dolli barke ala sayidina ci kaw sunu sang bi wa maolana tey sunu kilifa wa xurati ahyunina tey sedd ngeeg sunu xol abadan faw muhammadun turam muy muhammad nee na maa ngi tàmbali tur yàlla yàlla muy xéewlaa kon ñëpp jër na tey ko soob ci àlaxira yow yàlla nga sax dàkk bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne mooy di sunu kilifa di sedd ngeeg sunu xol dégg nga faw kii seddal sunu xol daal kii naatal sunu xol kii dundal sunu xol mooy yonent yàlla moom sallallahu alayhi wasallam léegi nag xasida gii mu ciy teg mooy xasida goo xam ne moom la wax ne képp ku ko mokkal ah yonent bi moo lay ram ëllëg yawmal xiyaam kon xasida gu mat a mokkal la def naa ne bëri na diwaan yu muy rot booy xool diwaan bi nga xamee ne moom lañ firi woon ci eh, weeru gàmm wu passé na le booy xool ñëw na ca muy diwaan bi nga xamee ne mooy diwaanu eh, bu tedd boobu nga xam ne moom la ñuy jàng muy faydul baaxil xaalix fii mawlidi xayril xalaayiq diwaan boobu booy xool fa tabaarakallahu moom it ñëwoon na ci xasidi gi kon dellu na ko imti indiaat ci xasidi gi nga xamee ne mooy diwaanu mawahibul ilahiya yàlla na ko yàlla fayal moom borom Tuubaa kon képp ku mokkal xasidi gi rek nee na boo lëg yemal xiyaame yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo lay ràmm kon lépp ay bonus la ay ngëneelal yu tukkee ci yàlla mu defal ko ko mu dugaloon ñu ko ci biir xasidi yi tabaarakallahu